Sall waroon a amal fii ci Géejawaay daa mel ni Aliou Sall dafa ñëw ba ci buntu bi ndaw yi nee nañu di dugg yow sa première impression par rapport ak situation bu ci am. merci beaucoup donc première impression bi ma am ma ne effectivement Aliou Sall ñun waa Géejawaay ñun ñoo ko jël porté ko mu ñëw bokk suñu parti ñu jàppale ko mu nekk suñu toolam ñu jóge fa waa Benno Bokk Yaakaar nangu mu nekk seen toolam ñu jógee dafa ñu jël ko porté ko comme candidat à la mairie ñu jënd léegi déglu donc ak lu mu mën a doon xamuñu lan la moo nekk si bopp mais bu dee démission la moom en non parce que bu ñu d'accord Aliou Sall démission parce que il est président nit la ko nga xam ne bu am solo ci biir Guédiawaye donc gis nañu bu ñu ñëwee Guédiawaye transformation bi ñu fi tax na jeunes yi bu ñu defee loolu ñun dañ ci ànd ak ñoom te d' accord nañu ñoom pour que loolu. alors alors mais est jaruloon ñu xaar euh, Alioune Sall mu ñëw nag mu wax ak askan bi parce que kenn xamul lan la indaale lan la doon wax tamit c' était important. ñun ñu xam euh, lan la xew lan xew lan nan la gisee mbirum euh, coowal pétrole bi ba tey. c' est xale yi dañuy bu ñu njortee bu ñu bàyyi ba ba ba jaan bi dem ba pare ñuy topp donc bu ñu njortee ni dafa war a démissionné ak fu mu mën a démissionné xale yi dañuy taxaw ñu fi amee ñu mag yi donc c'est pour sa parce que waxtaan lañ ma mais bu dañuy njort loolu moo am loolu duñ ko nangu parce que Aliou Sall ni mu njëriñee ni mu amalee njëriñ euh, Géejawaay loolu la amalee njëriñ parce que bu ñu fàtte ne coowal ay partenaires. ñu liggéey ko ba pétrole bi feeñ kon benn nit wala ñaar nit ñu ciy wax dañu goree di rek mais bu pétrole amul coow du am te Aliou Sall moo fexe ba pétrole bi am nañu waxante dëgg moom ak frère am ñoo fi ñëw ne nañu gëstuwaat pétrole depuis temps Senghor ñu ngi koy gëstu ba léegi kenn mu si fekk pétrole aujourd'hui trouvé nañu pétrole ñuy def ay lobbying ak yooyu nañu arrêté ñaari nit ak ñetti nit mënuñu toog si Sénégal amee Sénégal ñuy wax ay BBC BBC organe de presse la comme yeneen organe de presse mën na am de bonnes informations comme mën na am de fausses informations donc moi je considère que ni li xam ne moom la BBC génn du la bonne information dañ moom ci dëgg c'est-à-dire presse na génn lu baax ñoo ni presse du génn mais mën na génn aussi lu nga xam ni suuf bi du waaw mais kase si yéen la bokk moom tamit am na ay euh, kaddu yoo xam ne déggal na ko ci lu jëm ci ay versement dama ni kase bu bokkee ci bokk ci ñun xam nañu tey am na lobby même yu nekk au niveau de la présidence yu xam ne a gis ñun xam nañu loolu am na ñoo xam ne dañuy bëggoon ni gis naa wax naa ak Aliou waxul kenn ne moom moo def ni wala def na la te Aliou Sall waxul ak moom loolu mënul mënul wax fenn mënul génn fenn fu nga xam ne toog na wax moom Aliou Sall loolu ay wax la gis nañ fi ay Moustapha Diakhaté ak ñeneen ñoo xam ne wax nañ fi ñooñu dañu am contentieux ak Aliou bëgguñu gis Aliou te yàlla def na dañ koy gis ko kaw parce que Aliou Sall nit la ko nga xam ne day liggéey nit la ko nga xam ne ko am solo la ndax ci li ma leen wax bi ñu ñëwee Géejawaay ñun waa Géejawaay sentir nañ ko si suñu biir gis nañu li fi def kon du ñu benn yoon muy génn seen ak fu mu mën a doon ndax même CDC boobu nga xam ne président bi daal daf ko jox ko ko parce que c'est son frère daf ko ko parce que c'est le coordonnateur bu xeex politiquement ki ngay Guédiawaye ba tax tey ñu jox ko une responsabilité politique ñun waa Guédiawaye dañu donc nañ euh, gis nga xam ne moom mooy contrat pétrolier na yeneen réew yu ko euh, a renégocier contrat yooyu tamit. renégocier gis nga pétrole bi yàlla dafa def bu ñun rek ñun ñoo ko moom dañ ko seq ak yeneen yi te président Mauritanie bi génn na barki démb dégg na li muy benn deuxièmement problème ren. transparence bi nga xam ne moom la ñu teg ci ci ci kii mënu nekk fi di répéter li nga xam ne parce que man député laa maa ngi assemblée nationale xam naa code de transparence bi nga xam ne teg nañ ko yëpp pour question ay problème de transparence ak yooyu transparence am na depuis le départ parce que ñaari réew yi ko seq du ñuy ay réew donc nañu bàyyi nit ñi dañuy kii ñii koy dénoncer ak ñi c'est parce que c'est des candidats perdants yon xam ni Sénégal kenn gëmu leen ñu dem ñu ne léegi nañu def lobbying pour que ñu financé ñu à l'extérieur ñu bokk ci diiru pétrole bi c'est ça mais amul leneen.